balaa ñuy wax la bande verte bi nga xam à l'est le nec de l'aéroport la partie ouest n'est nekkoon non aedificandi moom la ñu jë attaquer attaqué déclassé ko moi bi zone u Almadies bi jeexee léegi ñu zone non aedificandi c'est la partie ouest de l'aéroport mu ngi situé sur le territoire communal de Ngor foofu la ñu commencer, commencé bi ñu jógee ci remembrement attaquer zone yooyu kon non lañ ko continuer vers l'est Didem donc vers virage ça a continué évolué dans l'histoire continué tout vers les années 80 vers la zone de Tunduria Warar, Djem, donc voilà comment s'est passé le démembrement de notre patrimoine communautaire dans le temps entre 1943 et Johnny Ce qui ci suis euh, li ma leen ko expliqué noonu la ñu démembré suñu suñu patrimoine léegi ndax jamono boobu dañu toogoon rek di xool wala jéemoon nañu dara alors effectivement kilifa yaa ngi nii toog mosu ñoo di attirer attention état bi sur le fait non seulement ñu ngi jël loo xam ne lii alalu maam la woon ñu jotul immatriculé ñu di ko jox à des personnes des spéculateurs particulièrement des amis ak ñep ku leen neex bayyi donc les vrais ayants droit alors lolu andina plusieurs fois des réactions de population mais chaque fois bu dafa daawul nangu domam di jox di dem ci mbedd di yàq bu dee ne lu aw naqar la dañ koy bok mom mo ci jitu moom way jur bu doom di dem day and ak mom xana waaye du ko C'est gennaw ko muy dem mag ñi toujours au front ñu daan ce combat alors donc mm, adressé vous à toutes les autorités de ce pays Comment mu vous di sous-préfet préfet gouverneur ministère intérieur des maires de l'époque maires de ville des ministres de l'intérieur des premiers ministres mais Monsieur mën yegg benn yoon ci li nga xam ne mooy ndey ji le président de la république et pourtant ku ci ne fune bind nañ fa fune tok nañ fa audience amul ken ku ne déggul suñu doléance lola ma ngi waxone 15 ans waye bo gëné sore dans l'histoire da naka ëpp lolu mu ngi dem déjà alors dans les 20 30 ans bientôt donc durant processus boobu yépp kilifa ya ngi tok tënk njabot gi boo leen ak liñu dal ni mu méttee te euh, boy set sur le plan des cas vraiment amul vraiment une situation buñu wax né Ngor ak état bi yegg nañu foo xam ne bakkan fàtte wala dara tuuru na fi té mënoon naa mënoon naa am loolu nga xamné kon lebu amal na am prix ci njabootam te lébu si gëm na yàlla muñ na liñu dal metti na kon nak

ngaañ bi moo di ñi nga xam ne jël nañ seen alal te moom la ñu yaakaaroon parce que nit bu amulam xëy liggéey sax boo amee sa pàkk bu tawee boo fa jëmbatee mën a am bu dul bési boo doon dunde nga xam ne moom lañ daan dunde à l'époque waaye xanaa jigéen ñi nga xam ne amoon nañu pàkk yu ñu daan def donc seen jardin potager xanaa ñu mën a am boog lu ñu motale dépense loolu day fekk nga mën a am boog pàkk boo xam ne libre na ci yow loolu yëpp état bi jël ko l'État nous a installés dans la précarité donc un défi, nous, jafe ci nous, nous, nous nous, ci encore li nga xamante ni que xam savez, ko yëg vous ko dégg nous ko vous piège ci am ba presse aussi ci jamono yi liñ ci wax yépp ci affaire licence ak vous nga

alors lu mu ñu jural mooy tey ñu ngi gis suñu njaboot du ñu ko nëbb de am na du ko nëbb c'est la vérité loo xam ne naqadi nañu mais xam nañu li ko indi bu ñu demee ba suñu njaboot ñu dafa gis loo xam ne xamuñu ko woon fekkuñu ko fi woon du fi baax mooy jigéen jooyu mooy mooy góor buy dem di di di jël euh, euh, yu bon bi ak euh, daal li nga xamante ne du lépp ñaawteef la yoo xam ne dafa dal tey si suñu sunu njaboot donc ñu ngi koy ñaawlu